ndeyam muy jëree jàq mu jóge ci bis bu am solo mais doomu ndeyam jëm ci bis am solo diggante ak Tapha Leer jërëjëf ah Kara Faye lañ la alaaj nag amuñu leen lu ñu wax moom ndax alaaj bu dee alaaj kay xam champion la maa ngi moom lamb boole duñu maa ngi moom ay mag a rakk lañ ndax bu lamb jàllee da nga ñu gisaa boo ñu gisaa ñooy ànd suñu oto nekk chaque jour mais lamb boole duñu moom daal li mu koy ñaan daal mooy rek si xolam yàlla fay ko woon bu ko fayee day indi ndam dafa leer dara man suñu mbër lañuy xam lu mu liggéey te bu soobaa dañuy waaye dafa leer dafa leer ñu gëmuñu ko sax ñun bu ñaan kii dara la lañ gën a aay doxalee ñu doon ñu ñu gëm ko doxalee te alaaj kay li nekk si moom bu ñëwee bu demee balaa fekk deuxième mu jàpp ñu ngi Thiès. ko yi gis ngeen ma léegi waxee ñu ngi jëppoon presse bi ba léegi ñu taxaw ki xam ne mooy Modou Anta numéro 2 di ndaanaan di champion ñëw fi nga xam ne mooy tax kaw succee ki nga xam ne mooy Ala Digané ci bis ñu jëm digganteem ak Tafaleer mais vrai que ne adversaire la ñoom ñëpp dañuy bëre seen biir mais teewul am bis sa morom day ñëw teewle la parce que combat bi mu jëm combat la boo xam ne Dakar la koy bëri anta si te moom daanaan la duggan ci affaire yi wax dëgg yàlla Thiès géppam ci ginnaawam muy mbëri yeeg amateur rek supporter rek yëpp na jël couleur Thiès dem défendre ko Dakar ba waa Dakar xam ne Thiès am na ay champion yàlla defal ko ndam ci doole Serigne Saliou moo daan na fi mu toll ñoo ngi ci rek ñoo ngi ci rek xaar gaay yow la wala ci promoteur du ci man man xam nga ne yow di yàggee ci man jaajëf gaay jaajëf ay ñu taxaw mooy grand champion muy ambulance ambulance numéro 2 sa xarit sa doomu lay jëm ci di bu am solo muy Alaaji Gaynde digganteem ak Tapha Leer premier combat bi mu Dakar moom Mbaye grand combat yow ki nga xam ne mooy armée tey mu dee di ci deuxième combat am Dakar diggante ak Tapha Leer lan nga koy wax. waaw moom ginnaaw bi ñu sant yàlla jiw sant bi sant suñu ñaari waajur. ah li ñu koy wax si làmb ji man li dafa leer xamul ki mu jël. xamu ko. xamu ko Alaaji xam na ki mu jël. xam na ku baax Alaaji yabuñu sax parce que man mii dama ko doon seetaan si loolu. entraînement guddi ak bëccëg lay def. tabaar kii Serigne Saliou Mbacke bu mu dajanteeg dafa leer di nga xam ne kii bi war a. billaay wallaay. na mooy may ndam nag yàlla nañ yàlla may ndam nit ñi mais yàlla xam na ndam rek lañ ko yéene barki Serigne Saliou. liggéey na la nga xam ne carrément li man leer na na sëñ Tuubaa bu dalante sa waay yàlla xam na ne yàlla na ko may ndam jaajëf ko defaat ci ki loolu waaw mais fi nga rek la ñu ñun amuñu ñun ñoom ñoom amuñu ñun ñun nit dëkk dëkk bu rafet kontaan nañ ko dimbali ndax ñun buñ tollee ñoom fi ñu tolloon ñu dañoo jàppale dimbali ñu ba ci suñu ak si kon ñoom rafet na ñu jàppale leen parce que dëkk waay jafe na te parce que dëkkuwaay ni mbëkk ñu la boo daan na ñu mbëkk kër ga dugal sa yaay soo góorgóorloon benn nga góorgóorlu si talam ak feeñ loolu rek la pour bëgg ñu góorgóorlu mu jëm ci combat ba solo digganteem ak Tapha Leer ni nga adversaire Tapha Leer xam naa ko bu baax boo Leer lan lay doon waaw mais xam nga dafa nekk làmb xale ak mag waaw combat bi bu neexee laaj day gaaw bu neexee laaj day yéex mais ak lu ma defoon ni ko alaaj jox cër rek jox ko cër waaw Alaaji xeex arrangé na ko ci combat Alaaji xaar dugg na gaynde gaynde kay jeexalee waaw jaajëf jaajëf sant bi yéen ci dernier rek laa ci def waaw ñu ñaanal leen ñu rek dañu tees gépp ñaanal bilaay loolu gis noo gisee Alaaji gaynde non ñun moom nice nan nan ñu ñaanal rek. waaw yàlla bëri na sutura bu baax. ba dem mobilisation fan ngeen toog. yow xoolal rek. xool naa rek. waaye na ne war na sëñ Touba. mais daa mel ni dañoo namm naa laaj. moo yow eh. kii mooy borom dëkk bi. loolu la dogal war na sëñ Touba. jaajëf waaw jaajëf. wax rek moom mooy incha allahu rabi dinaa taxaw ci bisam bi jàppale ko ni comme ni ma ko war a jàppale ba mu dem jëli ndam bi Dakar indi ko Thiès ndax ñun dañoo nekk ay acteurs politiques waaye dañoo gëm jeunesse su Thiès surtout la jeunesse sportive bu yàggul raqam Karaara bi muy bëre noonu laa ko defaloon ba yàlla may ko kon nag moom Alaaji Gaynde tey jii bu ñëwee am bis ni ma jàppale woon rakam rek laa fas yéene jàppale ko ngir yàlla may ndam Thiès ndax dañoo bëgg tey jii nii mbëru Thiès yi fépp fu muy dégg mbëru Sénégal ay Yékini ay Bombardier ay Balla Gaye ñu fa ñoom alaaji gaynde te mu war naa mën a nekk jàppale la laaj rek kon nag incha allahu rabi na alaaji gaynde xam ne ne taxaw nañ ngir jàppale ko jàppale ko am solo ngir mu jëli ndam lu indi ko Thiès incha allahu rabi nga defal leen loo xam ni mun nañ ne xale Thiès yàgg na jooytu loolu noonu muy ñu leen jàppale mais ñu gis également heure bu ñu amee combat rek nga ñëw di leen taxaw ñu gis diggante Moussa combat bu mujj mu muy bëree ji taxawaay bo am solo bi nga ci taxaw tey ji Alaaji Gale amaat combat nga defaat noonu tey ji nii sa diggante xale yi lan la. waaw sama diggante xale yi xale yi ñoo ma woon yar bu mot sëkk ba pare def ma seen nijaay bopp vraiment nag aussi ma am cofeel ci ñoom. ndax xale ak la mu gëm boo ko ci jàppalee rek yàlla mun ko cee may ndam te arène bi léegi entreprise la ay ndaw ñoo ngi ciy tekki di dimbali seen i baay di dimbali seen i ndey di leen tabaxal ay kër di leen yóbbu màkk kon nag loolu yeneen mbëri di defal seen i waajur yi ñoom Alaaji Gaynde war nañ ko mën a defal seen i waajur yi may sant bu baax sama jigéen jii di roqee bari moom moom ma dugal biir zone nord moom ma xamale ak Alaaji Gaynde ak Karara kon nag tey mbirum zone nord damay sant bu baax roqee bari mi nga xam ne moom mooy yaayu xale yi moom moo leen jàppale guddi jàppale bëccëg lépp ñoom ci moom lañ ko yaakaar moom it man la yaakaar ma it ma yaakaar yàlla kon nag vraiment maa ngi leen di encouragé di wax Alaaji Gaynde yàlla na ko yàlla may ndam bu rafet ci bisam bii mu jëm incha allah rabi. tey nga def une forte délégation ak monsieur le maire ngeen ñëw dooleel ki nga xam ne mooy seen doom muy Alaaji Gaynde. waaw maa ngi ànd ak président Ousseynou Diouf di sama xarit di sama wasila ci sëñ Babacar Sy ma bëgg ko lool mu baax baax ci doomu Thiès di yaatal waa Thiès rawatina jeunesse su Thiès waa da leen a bëgg Ousseynou Diouf léppam social la seeni Diouf lijjantiwul lu ko président Macky Sall jox ak lu mu ko joxul Ousseynou Diouf dafa social Ousseynou Diouf ci alalam ak dooleem ak yaatuwaayam ak léppam jàppale sportif yi nga xam ne ñoom ñoo nekk yëpp ci Thiès rawatina zone nord zone ouest ak zone kii bi est bi yëpp mu ngi ciy def dooleem ak kattamam ci lépp ci ñaq boppam te kenn fekku ko ci ku wax làmb wax euh, jeunesse ku wax jeunesse wax sport tey jii nii muy facteur de développement tey jii nii xale yi nekk ci am ay champion yoo xam ne ñu ci koñ bi di def làmb muy ku mel ne Alaaji Gaynde ambulance ku mel ne Karana Junior yeneen champion bari nañ mais nañu gis a chaque fois suñu amee combat ngeen ci am taxawaay bu rafet seen diggante xale yi lan la. suñu diggante xale yi mooy respect ak tamit dañoo bëgg sport ñoom lu ñu mënti am sport moo leen ko gënal dafa doon loo xam ne seen bëgg-bëgg la Olof Njaay nee na nit ki danga koy fekk ci bëgg bëgg-bëggam moo tax ñun ñu fekk su ko ci bëgg bëgg boobu moo tax ñun ñu xool ci Thiès xool ci responsable Thiès yi ne ñun kat kenn doyuñu ku dul Ousseynou Diouf ci social am ak li mu bëggee sport moo tax ñu woo ko keroog bi di bëree Ousseynou Diouf ngeen fi gisoon di bëre di Alaaji Gaynde Ousseynou Diouf ngeen fi gis mu toog waa la ndax Ousseynou Diouf dafa social gisuñu benn responsable politique boo xam ne mu ngi dëkk ci biir zone nord bi bu jàppalee sportif yi déedéet amul suñu euh, jeunesse yi dañuy dem ba fii ba yeneen zone yi fu ci zone ouest bi seen lépp Ousseynou Diouf la te Ousseynou Diouf moo baax ci ñoom yaatu ci ñoom social ci ñoom du boole ñaqam ak dooleem di ko def ci sport bi. jibi jibi bàyyi Cheikh Ndiaye mu ndaw ndeysaan yow jibi baayu Seex Njaay mu ndaw doomu ndeyu Seex Njaay jibi sama baay faal bi Seex Njaay mi bëgg alaaji gaynde ku bëgg alaaji gaynde champion ngay daane waaw way naa maam Cheikh maam Cheikh Ibrahima Ngom maam Cheikh Ibrahima Ngom tàccu leen ma soxor kele maam faal yee eh xanaa fi daan waay alaaji la nu bëgg gaynde la dama bëgg waa Sénégal xam ne ñun keeskaay la ñu am te keeskaay la ñu dëkk fu ñu mën a dem ci àdduna drapeau cees la ñuy yóbbu ñoo xam lu ñu mën a am ci àdduna Thiès la ñuy yóbbu fu ñu mën a dem fu ñu mënta mel keeskaay la boo demee Dakar tey seen champion bu ñuy bëree artiste bu dëkk ci koñ ba day génn kon ñun war nañu booloo bokk ndey ak baay ba mbër yi bu ñuy bëree ñun artistes yi ñu génn. dëgg dooleel leen jàppal leen. dëgg la parce que alaaji bu amee ndam kees gaay yëpp am dam du daaxi kaw rek moo am ndam. man fi ma jógee dafa sori mais lépp alaaji gaynde la. gaay am nañu ay champion yu mag yu fi ne am nañu ay politiciens boo jarul ngeen daw fenn fii am na lépp. fii am na lépp yàlla na yàlla may ndam grand yàlla na yàlla may ndam la ndax boo amee ndam ñi ñëpp ñoo am ndam jërëjëf ne ko Sénégal Sénégal Sénégal gi Ousseynou kii yaa ko moom Ousseynou kaay ne ko Sénégal Sénégal Sénégal gi kii kii ko nga xamante ni ku fi teew la te jëm ji teex la fee teew muy alaaji Gaynde di sunu doom ñoo ngi gërëm mboolem ko nga xamante ni rek ku jóg ñëw ci bis bi ñu may ñu dégloo tuuti ñoo ngi gërëm caméraman yi journaliste yi nga xam ni déplacé na nañu mais également ki tax tey ñi gërëmaate ñu ngi koy njëkkee ci alaaji Ousseynou Diouf mi nga xamante ni moo taxaw ci sunu kanam tey li tax tey ñuy jël kàddu di ci wax dañoo nekk ci écrit bëgg sa waajur nekk seen papa ndax ma nekk Seydou Diallo mii tey jur alaaji ñun ñaar ñoo jàngandoo benn métier ma yaroo ci koñ bi alaaji doon sama doom di sama jarbaat ñu gis lu xew ci koñ bi lu xew ci làmb rawatina njabootu Seydou gi suñu ñëwee fekk fi alaaji Ousseynou Diouf mu taxaw ci seen kanam mat leen bàyyi mat leen lépp dooleem ak léppam di ko def kon ci bis yi mel ni amee ñun ñi nga xamante ne ñoo nekk seen i kilifa dina jaadu ñu feesal suñu mbégte kon Alaaji Ousseynou du yow rek yaa nekk taax kaw du yow rek yaa nekk ci gox bi te lu xew ci làmb suñu ñëwee fii bu ñëwee gis la nga taxaw ci taxawaay bu rafet vraiment loolu lu rafet la ñu lay ñaanal lépp loo xamante ne loo man la lépp loo dëgmal lépp loo xamante ne loo am la yàlla na nga am lu kawe sa njot kii kat war nañ ko ñaanal parce que su amee dara ñun waa làmb dootuñu sonn parce que depuis bi mu commencé ba nëgë ni muy ci muy ci kii nga xamante ne mooy Aidara Karara di rakki alaaji damay ñëw di ko fekkee man nag lépp lu ma gis sama bët bi tegu ci su wax ko jotee dinaa ko wax même bu ma ko fekkewul xam naa ne lu baax ay def ci làmb Karara mii tey fu ma egg ci làmb yàlla ak alaaji Ousseynou la te mënoon naa yem ci moom kon su magam ñëwee tey mu taxaw ci taxawaay bu mel nii dina jaadu ñun ñu yëkkat suñu kàddu ndax su ma waxee mel na ni Seydou Diallo wax na su ma waxee mel na ni écrit bëgg sa waajur ñëpp wax nañu kon El Hadj Ousseynou Diouf jërëjëf mënut a passé jërëjëf jàppal ni xol waa taakoo gépp seet nañu ma déedéet dama a ñoo dem Qatar bu fekkuñu fa. yaa ngi dégg xamuñu ko fi laa fi laa ko fi laa ko xamee. yaa ngi dégg mais bi ñu demee Qatar bu defal ñu teraanga boo xamante ni ñu war a fay biis bi yaa ngi mu ne yëpp mu doomu jéeg yoon maa ngi fay lépp. jërëjëf ko ba tey ay jëfam weesu na li ñuy wax kii di MC Mbeur nekk suñu naataango nekk fekke teraanga Sénégal TV. nga nee nañ dañoo ànd dem ba Qatar daje fa mais en tant que Thiessois bis yi nga xamante ne ñoo ko waroon a fay lépp lu fay teraanga kon ngeen xam ne El Hadj Ousseynou Diouf teraangam passé na di taax kaw gi ma def d'une manière générale ko compté di ko ci def. muy képp koo xam ne doomu Thiès la soo gisee da ngay def comme boppam kon El Hadj Ousseynou li ñuy ñaan mooy fépp fu ñuy séntu ku baax yàlla nañ fa mais ñii lépp def ci ñoom rek ci ñun ko ko def ñun nag am nañ fu la ci toll lépp luñ ñu defal su wax ko jotee dinañ ko wax kon El Hadj Ousseynou jërëjëf ñu jox la kàddu gi nga sànni ci ay kàddu ñu continuer liggéey bi kon El Hadj Ousseynou bisimilah. asalaamaaleykum mbokki Thiès asalaamaaleykum mbokki zone maa ngi leen di nuyu ci seen tur ak seen sant di am mbégte lool ñëw fi di wax nag sama ñëw bi fii tey alaaji gaynde bisu alaaji gaynde bi moo ko waral. Alaaji Gaynde dafa am bis bu am solo muy le vint cinq a ah, fonk bis bi lool woo ma ci ma ne ko dinaa la ci wuyus incha allahu rabbi comme ni ma wuyusi woon rakkam ji di Karara ba yàlla may ko ndam te incha allahu rabbi am nañ yaakaar yàlla suñu borom dina la may ndam ah lool sama dugg si fii biir zone nord nag mënuma sànni ay kàddu du ma gërëm kii di roqee bari ndax moom moo fi dugal xamale maak xale yi xale yi bëgg làmb bëgg sport ñu xam ne xale yi ku leen jàppale lépp li nga xam ne tey jii mbër yu mag yi ñoo koy defar seeni waajur maanaam tabaxal leen kër yóbbu leen màkka yor leen ñoom Karaara ak ñoom Alaali Guèye Alaaji Gaynde ak ñeneen ñu mel ñoom yàlla mën na leen suturaal ba ñoom ñu defal lu ni mel seeni waajur ñun nekk dañoo nekk ay responsable politique gëm Thiès te dundeewuñu Thiès dañoo gëm jeunesse su Thiès di jàppale son excellence le président de la république Macky Sall kon nag ñun fépp fu ndaw si ndaw yi woo incha allahu rabi dinañ leen wuy si utiliser wuñu leen wala bu du leen ci lenn lu dul ngeen gëm sport bi lu dul lépp li nga xam ne ñoo ngi ci nekk suba ba ngoon jot ngeen ñëw jàppale ñu ñun nag président de la république Macky Sall daf ñoo jox cër bi am solo nañu lañ jàppale leen ndaw ñi nañu jàppale leen ndaw ñi ngir ñu mën a faj seeni soxla jàppale leen ndaw ñi ngir ñu mën a jàppale seeni wéyjur jàppale leen ndaw ñi ci bépp activité bu ñu nekk ñu xam ne nag ñoom ñi Gaynde ñoom gëmuñu lu làmb ji ñu ñëw fekk si leen ci làmb gi ngir jàppale leen ngir cees mën a jëm kanam ngir itam Thiès dafa namm ay champion yi nga xam ne ñu mel ne ay bombardier ñu mel ne ay Yékini ñu mel ne ay Modou Lo fépp fu ñu yegg ñoom alaaji gaynde yi war nañ fay mën yegg kon nag jàppale ne ñoo ngi seen ginnaaw waa axlu làmb yëpp gëm leen ne incha allahu rabbi fi mbër yu mag yi yegg dinañ jàppale suñu mbëy yi ba ñu yegg fa pour que ak lu làmb a jëm kanam maa ngi leen di sant di leen gërëm de alaaji Gaynde ci bis bii du ma la ci seetaan na la ko waxee woon ci kanamu Roqee ak sa gars yi ngeen àndaloon dinañ ci jàpp ba mu mën fët jëli ndam indi ko fii Thiès jubilé waat fii ci biir koñ bi maa ngi leen di sant di leen gërëm wasalaam. jërëjëf ñoo ko déggandoo alaaji Ousseynou jërëjëf wante nag dañuy ci tofatalaat yeneen i kàddu mooy alaaji Ousseynou ñi nga xam ne ñooy say kilifa ci wàllu politique muy le président de la république monsieur Macky Sall moom la ñuy yóbbante ay kàddu mooy na la a jàppale parce que yow it ji mu am ci yow ji ñu am ci yow moom rek moo ñu man a dimbali ba yokk say ndoom bay tànk ba li nga bëgg ci jeunesse Thiès rawatina jeunesse Thiès Nord nga mën ko cee am kon ñu ngi koy tàllal ñu nit di wax ñi la féete kaw te mën la jàppale yàlla nañu yokk say ndoom bay tànk ba loo mën ren su déwénee mboolem ku di autorité ku nekk ci dëkk bi nii El Hadj Ousseynou Diouf def ne ko ñëpp def xale yaa ngi nii xoolal ni mbooloo mi toll. xoolal ni mbooloo mi toll ñii ñëpp bëgg a dem Dakar amuñu ay billets yu leen yóbbu su El Hadj Ousseynou jaaree fii it waay ñi ci des nañu génn jàppale xale yi soxlawuñu xaalis soxlawuñu ñu jëndal leen billets utal leen ay car ñu déplacé wu dem Dakar xale yi mënuñoo jënd billet fay ay car déplacé wu dem Dakar te mbooloo mi nekk fii bis bu ne bu mëri dem ni ñuy bàyyi ci dëkk bi moo fi ëpp loolu moo doon message bi. di amaan mbégte bu baax a baax a baax di nuyu assistance bi fi teew yëpp di leen nuyu di nuyu ki nga xam ni mooy ah, kii Ousseynou di ko nuyu vraiment taxawaay bi rafet na trop depuis ci combat Karara ba léegi ñu gis muy am taxawaay bu mel noonu ñu lay féliciter parce que tamit. bu ñu leen euh, tabbee ngeen jiite gox yi lii rek la ñuy xaar ci yéen parce que lii la askan bi soxla tey lii li ngeen soxla yéen jeunesse bi ñoom ñoo leen ko mën a defal mais da ngeen fexe yéen tam ba liñ leen defal bu ñu amee bis tamit ngeen delloo leen ko te tamit yow yaa ngi ci euh, euh, tànk yooyu ñu ngi lay remercier bu baax a baax alaaji yi ñu ngi lay nuyu maa lay fay nga jëm ci bis bu am solo muy la vingt cinq décembre sa diggante ak Tapha Leer nga jël adversaire boo xam ni ñëpp nee nañ moo la jiitu ci làmbi Dakar def ay combat yoo xam ne defoo ko parce que Tapha Leer gis nañ mu bëreeg ki nga xam ne mooy Boy Niang bëreeg Fils de Balla bëreeg Gamou Gueye bëreeg ndaanaan yooyu yëpp tey nga jël ko sa premier combat nga dem Dakar bëreeg mbay Balla daan ko jël boo xam ne ba léegi Dakar dañ koy waxtaanee tey nga war a duggaat Dakar sa deuxième combat war a bëre arène nationale yooyu yëpp tey jii nii nan nga ko waajalee. di sant sama tëdd fil sama xarit sama papa sama lépp alaaji Ousseynou Diouf di sant sama bàjjan Roqe di sant sama staff ñoom Baye Daawur xam nga Ousseynou Maam Góor Pape boobu ma kenn Baye Jaaji xam nga gars yi boobu ma kenn maa ngi sant ñëpp xam nga di sant tout tànk yëpp bu baax a baax a baax di sant xam nga ñoom njiit laay gars maa leen sant bu baax alaaji nga jëm ci euh, euh, bis boo am solo muy la vingt cinq décembre tey nga am bis def sa open press waa taaxi gaw gépp génn ànd ak yow waa gépp ànd ak yow loolu lan lay def ci yow waaw loolu lu muy def si man lu dul yokku ma jëm rek tey jii kees bu doon Dakar kon kenn waxatu ko kon maa ngi ci kaw ñaata combat laa bëri kees mun ñëw fexe ba génn dem pour lan te suñuy morom ñoo nekk Dakar di rayante guddee bëccëg suba ak ngoon di am lu ñuy am président fii treize combats laa bëre booy il est temps dafa jot dafa jot ma wane sama bopp te damay wane sama bopp incha allah si kàttanu alaaji dugg Dakar am adversaire bu mel ni Tapha Leer alaaji lan la supporter ay supporteram di xaar ci moom sa diggante ak Tapha waaw parce que boo dee xool ay jamono ci ginnaaw booy dañ maa yónni woon dañ ma yónni woon ma réeral ko ci sama diggante ak Ousmane Gane Gall man ne ko yaa ko for mu ni foroo ko ma xam ne moo ko for ma bokk ak moom xam nga ma ni kon moo ko for yàlla baax na baax ma dem jeexi leneen li xam nga heure ma ko gisee naa ko delloo booy yàlla dogal na nag maa ngi jeex maa ngi rëbb mais yaakaar naa bi ma tëddee am na lu ma xaw a gént lu ma duy daane ma le 25 décembre boo demee arène nationale la nga doon la nga réeré woon di nga ko gis ba ñëw delloo ko gone yi te incha allah la 25 naa leen ko delloo. mais alaaji loolu fa nga ma ne ma ne loolu fa nga koy jeexee bari na suuf de. bari suuf. moo moo moo tax nga xam ne day gën a neex a feeñ xam ne laa koy jeexee. Uh-huh. laaj ma nu ma koy jeexee. noo koy jeexee. parce que boo xam ne ñaata la ma joxoon ay cent franc cent franc xaw nu mu toll. te yaakaar naa su ma duggee arène nationale di ko jeexoo loxo fii ba suba feeñ laaj ma nu ma koy jeexee. noo koy jeexee moom la ñëpp di déglu. ay acier. acier laa koy jeexee acier. kon sa mën nañ cee xaar ngeen topp. acier laa koy jeexee parce que acier fu mu romb 100 francs da Leer 100 francs. le 25 décembre dama koy jàpp ngi santaat ñi nga xamante ne ñoo ñëw fii yëpp di nuyu suñu grand Pape Mbaye bu baax a baax a baax a baax ci jàppale bi nga xamante ne moom lay jàppale presse Sénégal rawatina na Thiès bu ñu fekkee ki nga xamante ne mooy suñu nijaay suñu grand ku mel ni Ousseynou Diouf duñ def di ko sant di ko gërëm parce que lii rek la njiit di jariñ say booy wala say jarbaat wala say doom am bis nga jàpp ci li ñu ci mën a jàppee jàppalem jàpp leen jàppaleen nitam moom weesu na sax def dafa jéggi na frontière kon mu ko waxee sànq waaye ma damay ñëw ci li nga xamante ne moom la ñëpp di xaar ñëpp ne nañ euh, Tapha Leer mbër la moo xamante ne moo la ëpp moo la sut moo la gën a yàgg ci làmb ba pare moo la gën a diis ba pare nga ne yow da koy jël sa diggante ak moom combat boobu est ce que xam nga ni Tapha Leer tam nekk na mbër moo xam day dóor yow donte Thiès xam nañ ni am nga fi saan gu nekk lan moo tax nga jógee ci défaite ba pare jël ki nga xamante ne moom mooy Tapha moom Tapha Leer waaye bàyyi ma waaye parce que dama mer dama am lu ma métti li ma métti leen dong laa jooy muy sama diggante Ousmane Gandigal mais xëy na yàlla mooy def xool lu ko neex mu def dafa gën ci man kon damay sant yàlla baax parce que bi loolu amee ñëwaat naa refléter sama bopp toog xoolaat sama entourage xool li ma manqué woon xam ma xam lépp xam nga gars yi waxtaan seen biir xam nga ma génn am lu ma dem uti ñëwaat te man li ma yor xam naa ko dëgg la dafa reer ndaanaan làmb la parce que daan na fi ku ne mais lu ma leer ba reer ñi ma bëreel ah ñoo gën a miti dafa reer donc mën na bëri sax mais ñoom ñoo a que bëri na faa gànd gaal ñu bëri ñu ndeysaan ñu doon xaar gànd gaal day doon alaaj jigéen ba mu tëdd gis ngeen na mu demee billiñ noonu waxatuñ ko xam nga parce que lii nii si kanam xam baal ba si kanam tuuti sax le 25 ngay comprendre. nga am tafaale daa 10 tafaale daa 10 dafa war a 10 kay sur 10 jours moom la moom li mu liggéey moom la concerné man li ma liggéey man la concerné je gagne je attaque. je attaque. je gagne je gagne je je góobo de je gagne je attaque. wala wala wala wala je défense je attaque. seen combat mun na jéem aar tubaab tubaab dañuy lépp loo gis. ndànk-ndànk la xam nga man ko lii mun ma lépp loo gis ndànk-ndànk la. lu ko tubaab waxee. xam nga américain bi ñëw ni ma eh man ko waaw mun ma comment t'appelles tu man ko je m'appelle Tey. ma sama dernière sama ci combat bi nga xamante ne moom la Thiam production dëgg ñu war ko ñu war koo bëri rek nga xamante ne mooy arena ñëpp xam nañ ni Alaaji Gaynde Gaynde la. loolu moom Sénégal gépp xam nañ ko mais est ce que Tapha xam na ne Alaaji Gaynde Gaynde la tax ndax combat boobu da ngay indi xeex wala dafa am loolu sa xel di dem nga indi teey indi bëre waaw parce que MC xam nga dañoo jëm jamono ji ñu toll dafa changé parce que ku ne gis na àdduna lu mu tëddee parce que lépp loo gis ci xel mu seen la waxtaan ba jubóo rek. te dinaa waxtaan na moom dinaa jubóog moom lax ko jël li ma yéen woon ma indi ko jox ko booy yi mais parce que lépp loo gisee xam nga alaaji dee ne moomul boppam am na staff am na entourage lépp lu ma wax noonu laay doxee mais bu as sifle génn suñu diggante ma Tapha Leer Tapha Leer su ma ko xoolee du ma xool barke alxuraan bu neexee yàlla su ma ko xoolee du ma xool Tapha Leer bu taxawee Tapha Leer bu dëggalee taxaw combat bi du mat minutes ci kàttanu yàlla maa ko gën a féete xale maa ko dàq bëre maa ko dàq xeex soo bëggee dëgg dëgg li nga doon wax noonu maa ko dàq fuuf ci kàttanu yàlla la 25 décembre dafa leen su dëggalee boppam dinaa ko attaqué su ma ko dóoree dina tëdd. côté mobilisation fan nga ci toll. côté mobilisation bi fan nga ci toll alaaji Dakar sori na de. waaw Dakar sori na moo tax gis nga parce que yàlla dogal na sama loxo jotul sama ginnaaw. comme sama papa bi mu ngi Ousseynou Diouf moom mooy sama Macky Sall mooy sama ministre mooy sama lépp comme que maa ngi koy gis damay jàpp man sama lépp lu ma doon jooy daanaka sotti naa maanaam ma ne moom du question ay xanaa ay cadre làmb wala politique balaa nga doon xam loolu tey politique yam fii du mu bàyyi man ak moom ba keroog géej gi fer du ma bàyyi barki yonente yàlla mu xamal du ma bàyyi te gis naa ni tey jii barki alxuraan ka dina doon président te dina ko doon si kàttanu yàlla parce que lii nii may jëli drapeau kees waa te moom mi laa ko war a indil. a wala 25 moom laa te dama koy indil jox ko si kàttanu yàlla. sama dernière question mooy yi nga xamante ne mooy champion Thiès yëpp tey dajaloo nekk en ku ci mel ne Thiéré Thiak Kulim Dioum ay Saafi. ay Mourou Anta numéro 2 ñëpp ñi nga xamante ne mooy ñoom ñooy ay mbër ñëw nañu jàppale la. loolu affection na nga ko dundee nga xamante ne ñooy jël drapeau bi jox la ko boo dee xool kees ñun ñëpp benn lañ parce que boo dee xool sama naan ci benn côté dañu doon xoj suñu biir ñiy na tey sport moo demee def ñuy rayante xam nga ba ku ci nekk sa tur am fu mu toll damay sant yàlla bu baax comprendre nga lii ni du man de mais yàlla suñu borom la sama liggéey ndey sama liggéey bàyyi mais incha allah ci kàttanu yàlla dañ gis résultat léegi xam nga mais li boo ko gisee tey maanaam mooy kees ñun dañoo war a booloo doon benn parce que ñun ñëpp benn dret bi la kees waa lañ lan mooy lan alaaj am na combat wala ay boo jaxaa toog fee wala saafi toog fee wala keneen toog fee non non ñu ñëw mobiliser ànd ak alaaji gaynde comprendre su ma heure bu gis damay xiiru heure bu ma gëstoo damay xiiru parce que daa am lu ma soxla parce que am na lu ma gis sama ginnaaw kon boo dee xool loolu noonu yaakaar naa la 25 décembre dafa arrêté du yaa ma a yàqal. sa kàddu yu mujj lan la. sama kàddu yi mujj mooy lan. damay santaat waa koñ bi bu baax a baax a baax a baax damay sant waa koñ bi bu baax a baax comprendre nga di sant góor a caam bu baax gaar ba ay dala karaara comprendre nga amet xam su ma limee damay juum comprendre nga ñoom ñëpp dama leen sant ay not njaay galas mooy bawuma kenn parce que su ma limee damay juum ah il faut ngeen comprendre ma tuuti de n'est-ce pas tu as compris ah ok merci aja jërë ngeen jëf mbokk yi ngeen ñu ngi woon ci open press Aladji Gaindé ah gis ngeen ni mu demee dund vraiment ngeen gis kàddu yi am solo yi xam ne ñi xam ne ñoom ñëkkoon ci bis yëpp moom a baax di leen jox dig dajee rek ci yeneen ah, laa àndaloon day jaajëfal Père ñu ngi leen di jaajëfal bu baax a baax jërë ngeen